sëriñ asan buso sëriñ asan buso mi ngi gane àdduna ci atum 1898 ci dëkk bii di kër sërif kër sërif mi ngi ci wetu dëkk bii di tiwaawoon sëriñ asan buso doomu soxna xari mbàkke la soxna xari mbàkke doomu mammoor anta sali mbàkke la soxna xari mbàkke mi mook sëriñ cheikh coro mbàkke ak sëriñ balla coro mbàkke ñoo bokk waajur wu jigéen ak kii di mammoor anta sali mbàkke moo meññ nag sëriñ asan buso mi sëriñ asan buso waajuróom wu góor mooy sëriñ mbàkke buso bu gédé li àdduna ci dëkk boobu di kër sërif ci atu 1895 bi sëriñ Touba seexul xaddim demee ci géej gi sëriñ Mbàkke Buso mi ngi woon ci dëkk bu sell bii di Touba waaye ci at moomu kërug Toubaam gi dafa tàkkoon ba jeex tàkk sëriñ Mbàkke Buso nag bàyyi ko woon fi demoon kër sërif ci wetu Tiwaawoon ci naar bu ñuy wax sëriñ Kumba ay dara booba moo nekkoon ci dëkk boobu di kër sërif sëriñ Mbàkke Buso nag foofu la nekkoon ba ni sëriñ Touba seexul xaddim di waaj a ñibbisee ci géej gi ci atu 1902 loolu itam moom moo tax doomam ji sëriñ Asan Buso feeñe fa lii bii di jamono sëriñ asan buso am na nag ñum bokkal kii di soxna xari mbàkke ñu ràññi ci sëriñ moodu buso mi nekkoon taawub sëriñ mbàkke buso sëriñ muhammadu mulaay buso doomu sëriñ mbàkke la ak kii di soxna xari mbàkke soxna roqayatu buso soxna maam faati buso ak moom sëriñ asan buso ñoo bokk soxna maam xari mbàkke ak kii di sëriñ mbàkke buso sëriñ asan buso bi matee dal lii di alxuraanul karim waajuram di sëriñ mbàkke buso moo ko dalal alxuraan ci tuubaa lasar ginnaaw waajuram sëriñ mbàkke buso sëriñ mbàkke buso joxaatoon na kii di di sëriñ asan buso magam ja di sëriñ moodu buso ngir mu wéyal lii di am njàngam bi matee jàng lii di xam-xam waajuram sëriñ mbàkke buso moo ko jàngal lii di xam-xam ginnaaw bi nag yóbbu na ko jaamal ci atu 1926 ngir jox ko sëriñ jaamal ngir sëriñ asan buso nag jàngee fa lii di xam-xam wala mottilee fa njàngum xam-xamam ndax kii di sëriñ jaamal dafa amoon yéene jàng si ci sëriñ mbàkke buso yéene jooju nag mujjul sotti loola nag sëriñ mbàkke buso xamoon yebaloon ko fa ngir barkeelu ca loole sëriñ jaamal yéene woon lii ñu leen wax na su ngeen demee ci téereb sëriñ Ahmed Cissé ci atum 1978 la ko bind mi ngi ko tuddee madrasatul jaamal ma ngi ko cay nettali di wax ne sëriñ jaamal dafa amoon yéene jàng si ci sëriñ mbàkke buso waaye yéene jooje mujjul so sotti loolu itam moom moo tax sëriñ asan buso sëriñ mbàkke buso indi ko jaamal ngir mu jàng si ci sëriñ jaamal ci atu 1926 nag la am su ngeen demee ci téere boobu di madrasatul jaamal te sëriñ ahmed siise bind ko ci atu 1978 man ko ko fay nettali ginnaaw jaamal sëriñ asan buso wat ci loxoy waajuram ci tuubaa gédé di jàng ak a jàngale nekk itam ci ginnaaw waajuram ba wuutu ko sax ci lii di daara ji di jàngale bari na itam ñoo xam ne nii kii di sëriñ asan buso moom moo leen jàngal lii di xam ñu man cee ràññee ne ñu baree baree bari ci yoonu murit wi ci mujjug sëriñ mbàkke buso sëriñ asan buso la bàyyee woon lii di daaray xam-xam ji moom moo daa jàngale ba tax na sax bari nañu ñuy wax na ci loxoy sëriñ mbàkke buso lañ jaar nakate sëriñ asan buso mi moo leen jàngal lii di xam-xam waa waajuram sëriñ mbàkke buso mi ngi ko jox daara ji ci atum 1928 mooy ginnaaw bu mu jógee ci dëkk bu sell boobu di màkkatal mu karama bi sëriñ mbàkke buso ñibbisee nag ci aj gi la yëg ne daal yaram wi daal ak mag dugg na ci wala ak mag ngi ci tàmbalee dugg te kii di sëriñ Assane Bousso xam-xam bi macha allah te seetlu na ko daal ci daara ji ñaare bu fi nekkul moom moo fiy nekk loolu moo tax ci atum 1928 jàpp 1929 la ko sëriñ Mbàkke Bousso jébbal lii di daara ji sëriñ Assane Bousso nekk fay jàngale ci ajug 1928 googu bi sëriñ Mbàkke Bousso di aji kii di sëriñ Assane Bousso bindoon na ko ay way ngir jox ko ko ngir bu demee nag mu yóbbuwaaleel ko ko ci dëkk boobu di màkkatal mu karama ngir bu waajuram woowu eggee mu fa way yooyu jébbal ko ngeen gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam ngir ak cofeel gum am ci moom ñu teewlu way yi xaliliya ida xasalta afdala bughyatin fa zurta rasulallahi xayral bariyati fanshidhu til abyata anni wa siflahu wa in aniqa jismi anhu xaalisa niyati ala ayuha almabxuus linnaasi rahmatan nuxayika bittabidi azka taxiya wa jaarayka la zalat alaykum min alali salatun maa al ashaabi fi kulli lahza wa naylu alamani ha huna summa fi xadin nujawirikum fi lxuldi bayna alahibati wa an yarjica alsafru alladi zaara xaaniman ilayna nuhanni'im binnaxmaa jannati way yooyu ngeen doon déglu te sëriñ asan bu sa bindoon ko ngën gi mbindeef salallaahu taala alayhi ngir ak cofeel gum am ci moom bi muy tëj way yi mi ngi koy tëjee nag di sàkku bis buy génn àdduna mu génne àdduna ci dëkk boobu di màkkatal mu mukarrama loolu la yóbbante woon waajuram ci atum 1928 bi muy aji ñaanam googu nag nangu na ñu teew teewlu way yim yóbbante woon waajuram ngir buy génn àdduna mu génne àdduna ci wetu ngën gi mbindeef janaabal qarmi axdimuhu ida ma muwaajahatul da daan xawsi mujaawarata safiha ida amut loolu mooy ñaan gi yóbbante woon waajuram ngir buy dem bay dëkkaale mu dëkkaaleeg yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñaanam googu nag nangu na ndax ci atu 1976 ci fukki fani tabaski ya suñ boroom nangu na ñaan gim mu yóbbante woon waajuram foofu la ko suñ boroom mujj jëlee foofu sax lañ ko mujj denc ci aj googu ci atu 1928 bi sëriñ Mbàkke Buso ñibbisee nag la jox kii di sëriñ Asan Buso lii di daara ja sëriñ Asan Buso nag tàmbalee jàngale ngir sëriñ mbàkke busoo ci daara ji ndax booba kat ak mag nag mi ngi tàmbalee dugg si waajuram wii di sëriñ mbàkke busoo sëriñ asan busoo nag jàngal na lu takkoo takkoo takku ci yoonu murit ci ay génération yu wuute ci atu 1930 ba atu 1945 ñu ràññee ci ci ñam fa jàngal cheikh abdul xaadir mbàkke ibnu sëriñ tuuba xaadim rasool cheikh murtada mbàkke ibnu sëriñ tuuba xaadim rasool sëriñ njaaña busoo ibnu sëriñ mbàkke busoo sëriñ mbay mbàkke jaaxal ibnu sëriñ balla sëriñ abdu Ibrahim Bousso ibnu sëriñ Mbàkke Bousso sëriñ Muhammadan Jobbe Mbàkke ibnu Cheikh Massamba Mbàkke sëriñ Ibrahima mbake xalifa sëriñ Mandumbe Mbàkke ak ñeneen ak ñeneen ci atu 1930 ba atu 1945 baneen génération bu jaaraatim ci loxo loxoy jëmm ji di sëriñ Assane Bousso ci atu 1945 ba atu 1960 ñu ràññee ci sëriñ Ahmadou Bousso sëtub sëriñ mbake Bousso la ak mbooleem sëti sëriñ Mbàkke Bousso yi sëriñ Assane Bousso moo leen jàngal ci génération 45 ba 1960 di sëriñ Modou abdu xaadir mbàkke sëriñ asan busa moo ko jàngal lii di xam-xam sëriñ mammoor mbàkke murtada sëriñ cheikh mbàkke murtada sëriñ basiiru mbàkke murtada ak ñeneen ak ñeneen ñu takku ci génération 1945 ba 1960 jaar nañ ci loxoy jëmm ji di sëriñ asan buso ci wàllu njàngum xam-xam neen génération bi jaar ci loxoy sëriñ asan buso ñu tënk leen ci atum 1960 ba atum 1976 ñu ràññee ci sëriñ abo mbàkke imaamu usine benn tali sëriñ cheikh awa balla gueye conférencier ne sëriñ cheikh mbàkke moom cheikh abdul ahad mbàkke ibnu xaadim rasool sëriñ abdul ahad mbàkke moom sëriñ soin bu mbàkke sëriñ abdu xaadir mbàkke moom cheikh abdul ahad mbàkke sëriñ fàllu mbàkke moom sëriñ soin bu mbàkke sëriñ mbàkke daba saar moom sëriñ abdourahman mbàkke moom maam ceerno ibrahima faati mbàkke sëriñ koso mbàkke moom sëriñ abdourahman mbàkke moom maam ceerno ibrahima faati mbàkke ak sëriñ atteex mbàkke moom sëriñ cheikh awa balla mbàkke ak ñeneen ak ñeneen ci génération 1960 ba 1976 jàmbaar ji di sëriñ asan buso jàngalekat jàngkat la woon ndax kat génération yi jaar ci moom yépp wane na ko mu des gédé di jàng ak a jàngale wuutu waajuram wëcc ci daara ji nekkitim ku fonk yoon wi di yoon murit ndax lim am lépp kat ci la ko amee ba saa su ne daana dem di ziyaare ji ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim am na benn bis mu dem ziyaare ji ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim kere bi mu eggee sax bind na fa ay way ngir jagleel ko ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ñu teewlu way sëriñ Asan Buso bindoon ngir jagleel ko ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ngir ziyaare gum demoon ziyaare noppi ataytuka bahran wal hawaa'iju jammatun wa arju xadaa al kulli min juudi faydika arumu salaah al hanna wa haahuna fa ajniya ma ahwaau min zahri rawdika xaristu fajul barra fil barri ajtadi jadaahu fa jaadal barru bil birri wal burri noonu mu ko amale ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim bi mu demee poroxaan ci maam jaaratullaahi ginnaaw bu mu ko ziyaaree ba noppi jagleeloon na ko ay way ngir di barkeelu ci jëmm jooju tëdd foofu ñu teewlu way yim defoon ci soxna jaaratullaahi moom sëriñ asan buso زيارة الإله زائرة وبالمنى أرجو انقلابي ظافرة رضي عنك ذو الجمال شاكرة سعيك نافيا بك المناكرة بابنك رم ذو العباد ظاهرة وباطنا لقد حوى المفاخرة جزاه ربنا جزاء باهرة عنا فقد سد به المفاخرة Sëriñ Assane Bousso bindkat la woon noonu tim ni la ko toppoo ndax ci atum 1926 ci nekkinu ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim bindoon na genn xasida ngir jagleel ko ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ngir di ci wax jikkoy ku baax ki Sëriñ Tuubaa Tuubaa Seexul Xadiim ñu teewlu xasida gim bindoon ci atum 1926 moom sëriñ Asan Buso ngir di ñu nett li jikkoy ku baax ki Seexul Xadiim busra faqad anjaza almahbubu ma waada wa habl wuddika mawsulan ladayhi gada wala hadarka uyunu alhazzi basiratan wa daabilu alayshi adha naiman raxada hada allati law qata'ta al arda multamisan mislan lahu jubtaha kullan walan tajida wal aramin wal aytaami dammahumu maarufuhu fa nasu bi cheikhi man walada rahbu dara la yani saf kashifun yalimu bihi tismaani muntajahun naylal huda wajada fa yansanuuna wa kullun xaaza matlabahu yahdi wa yujji bi faydi cheikh mustanida rabbal quluba fa saffaaha wa nawwaraha bimaai rusdin yurawi waaridan bi sada ihin bihi xifda tanzila munziluhu xafida tanzila munziluhu xaqa tilawati yutla indahu abada laa yaqtani naaman kalla wala dahaban yaraqtina'ahuma wallahi akbarada bal mushafan yaqtani ilqan wa alatahu xarzahu zam tafus wax dem hutug sëriñ asan buso sëriñ tubaa seexul xaddim joxoon na ko lii di doomam di soxna xadijatu mbàkke soxna xadijatu mbàkke mi moo seex abdu xaadir mbàkke ak kii di soxna maymunatu mbàkke kubra ñoo bokk benn waajur wu jigéen muy soxna aminata kandi buso sëriñ tubaa seexul xaddim bi muy jox kii di soxna xadi mbàkke sëriñ asan buso sëriñ tubaa seexul xaddim mi ngi doon wax sëriñ mbàkke buso mi waajur sëriñ asan buso ginnaaw boo jàngalee xadijatu mbàkke ba noppi nanga ko jébbal kooku nag di nag bu xadijatu yëg ne moom laay jox asan buso bu asan buso yëg itim ne moom laay jox xadijatu ndigal loolu seexul xaddim waxoon sëriñ mbàkke buso itim sëriñ mbàkke buso noonu la ko wéele ba ci atu 1933 mu fab kii di soxna xadijatu mbàkke jébbal ko sëriñ asan buso sëriñ asan buso am naa kii di soxna xadijatu mbàkke ñetti bant ñu ràññee ci sëriñ ahmadu buso ibnu soxna xadijatu mbàkke ibnu sëriñ asan buso soxna faatu bintu buso bintu soxna xadijatu mbàkke bintu sëriñ mbàkke buso ak kii di soxna ayda buso bintu soxna xadi mbàkke bintu sëriñ asan buso soxna ayda mbàkke mi sax moo fi desandi ci doomu soxna xadi mbàkke yi ñu koy ñaanal suñu borom guddal aw fanam te wéral lii di aw cëram te taas ko ci barke waajuram soxna xadi jatu mbàkke soxna xadi jatu mbàkke mii nag doomu sëriñ tuubaa seexul xadim la moom la seex moodu mustapha mbàkke tuddee soxna xadi faatma sëriñ asan buso ku sëriñ tuubaa seexul xadim bàyyi woon xel la moo tax mu waxoon sëriñ mbàkke buso mu jébbal ko doomam jooju di soxna xadi jatu mbàkke sëriñ asan buso wiy desandi nag ci loxoy waajuram ba waajuróom wa di sëriñ mbàkke buso génn lii di àdduna bi waajuróom wi génnee àdduna moom sëriñ asan buso jagleel na ko sax lii di am marsiya ñu teewul marsiya bi mu defoon ci sëriñ mbàkke buso keroog bi mu génnee àdduna moom sëriñ asan buso ngir di ci jooy waajuróom wa sëriñ mbàkke buso hal zaara tayfun fa qafal am kawkabal huda afal am bahru ilmin gaada am zillu zalilin intaqal bal dahama alwara insilaamu ddiini fastadda alwajal faqdu imaani ddiini zalzala suhula waljabal tuqal bukaau ala alimaami مرتدى الفرد الأجل محمد مكي البسوبي الذي عصر أزل شيخ السيوخ موئل الأنام والحبر البطل ما خاف قط في جناب الله لوم من عزل أمر بالعرف نهى عن منكر حيث حسب قد اتقى حق تقات ربه عز وجل قد انتهى عما نهى عنه وأمره امتصل إلى أن قال عمره عيد وعامه عدا شر كمل Sëriñ Assane Bousso ku daa bind la ndax bind na lu takkoo takkoo takkoo takku ci wàllu ay way ak li lii di ay xasida bind na xasida goo xam ne ni da ñaan képp koo xam ne nii la ngay ñaan munoo caa jot boo gisee xasida googa suñ borom jàppandit la la ngay ñaan nga man caa jot xasida gi nag danañ leen dégtal lenn lu ca bokk li ci des nag ku ko soxla da ngay dem ba ci njaboot gi ndax ñu man la koo jox ndax mbirum sekkere la yallaahu yaa mujida kulli mujidin minal wara mun zahnan mujidi salli ala akrami xalqika alayka muhammadin xayri wasilati ilayka jamia an yakunu ajila wa ya rabbi ya li des ci mbootu xasida gi nag ku jàkkaarloog njaboot gi danañ la ko jox bind na itim moom sëriñ Assane Bousso yeneen ak yeneen i xasida bind na xasida ñuy wax tamriinul ak fal bindaan na itim geneen goo xam ne ci wàllu tasawuf lay wax moom sëriñ Assane Bousso sëriñ Assane Bousso itim bind na geneen xasida goo xam ni ci wàllu asaka lay wax aj màkka ak ponk lislaam yi kenn ku noo ko mën a sàmmee bala la ci suñ borom digal nga man koo def te du am benn gàllankoor kon sëriñ Assane Bousso ku daa bind la lu bari itam ci mag ñi lu mel ni sëriñ Mbàkke Buso mi waajuram sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim soxna Jaaratullaahi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne nii bind na leen ay way ngir jagleel leen ko moom sëriñ Asan Buso kon kat la woon sëriñ Asan so ko amoon kóllëre la itam ak mag ñi ñu ràññee ci sëriñ Soy bu Mbàkke ibnu sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke ibnu sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim moo ko jàngal te bi ñuy dem Màkka itam ci atum 1976 ñoom ñaar la Cheikh Abdou Lahad Mbàkke boole sëriñ Habibu Mbàkke imaam sëriñ Mor Mbay Siise bu sëriñ Modou Xabbaan bu sëriñ Mandumbe cheikh El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack sëriñ alin Cissé bu Jaamal sëriñ El Hadji Mohamed Jaabi ak El Hadji Ahmed Dieye bu Kaolack El Hadji Ahmed Dieye mi sax way na ko ay way ngir jagleel ko sëriñ Assane Bousso ngir jikkoom ñu teewlu ko aouzu billahi min ashaytani rajim ala shahid al ustaz Ahmed Mohamed bi bi marsiyati cheikh Al Hasan al Musuli raxmatullahi taala alayhi wa hada matlauha nabaun axadda min alxijaazi almadjaa jaat bihi uxti fa ifti almahjaa qaalu stamacta ila alidaacati fi lsaba xifa qultu laa qaalu ntabix waltasmaca qultu stahalla wa faatani axbaaruha bal axbiruuni ma stajadda liman wacaa fataraddadu is yaarifuuna taasuri bilwaaqii lmurri allati qad afzaa qaalat uziica bi anna samma sumayzan bayna alxajiiji xada walaaqa almasraa fa faxartu faay wa sixtuka alwaadi lbari man za ajiibi waltumiiti lbarqaa qaalat sadiiquka walxabiibu wa shaykhuna xasanu lfadaa'il qad asaala admuaa yaa ayuha alshaykhu alxabiibu taraktana mutaassifiina ila makaanin arfaaa lam taxlu baadaka tuxmatun aw lazatun qad duxtuha bal sararat yima balqaa zakartani cheikha alxadima bi hayati zuhdi lwaquuri fa kunta xibran arwaa qad xudta baxran lilmacaarifi kulliha fa lidalika kunta li ali mbakke almarjaa tabkiika taifatu lmuridina alula kaanu liman hali azbi ilmika kurraa min bacdi an bakati alsamaau wa ahluha walardu wassukaanu kullan ajmaa nam yaa wali ولي الله كنت حبيبه هذا المكان لمثل شخصك صنعا لا خوف لا حزن يحيق بمثلكم بل في هناء سرت لا لن تفزعا بل في هناء سرت لا لن تفزعا من جاء مثلك ليس يوسف ميتا بل كالشهيد وأجره لن يقطعا xasida googu oustaz Ahmed Dieye bu Kaolack def ci sëriñ Assane Bousso indi luñ leen lépp xasida gi nag ndax mi ngi toll ci juróom fukki way ak lu topp am na naarub gànnaar buñ doon wax Mohamed Ibnu Bada moom itam def na ay way ci jëmm jooju sëriñ Assane Bousso ngir tàgg ko ci jikkoom ak melokaanam ñu teewlu way yi naar boobu def ci sëriñ Assane Bousso di Mohamed Ibnu Bada hadihi qasidatun uxra qaalaha ahadu shuhara almuntaniyin wasmuhu Mohamed Ibnu Bada indama zaara alcheikh alxasan almusubi wa axihi alcheikh Mawlaay Ali qaala hadihi alqasida xasuna zamaanu bi talaatil atqa xasan fa taxaqaqat aamaalu kulli axi taman fa bi nuurihi wa bi ilmihi wa bi sinwihi mawla almacaali almurtada kuffa alxasan bahraani ancama rabbuna bihima ala wurraadi cilmin zaahirin aw mustakan qad ashrafat bihima alqura laa siyama baladun lidayni alcaalimayni xadaawatan faladayhima alkutubu alnafisatu tuqtana walxubsu mahma xubbisat agla zaman inni bi zaynil malja'ayni mu'allaqun fi sabbi a'malil 'izami wa fil 'alan fa wurudu zaynil malja'ayni ghanimatun limanali ayyi hawa'ij ad-dunya ta'in wa laqad wasikhtu bi nayliha is maqsadi mawla al-ma'ali wa rabi as-hasan sëriñ Modou Mamoun Bousso nekk imaamu jumaay Touba moom tim def na ay way ci jëmm ji di sëriñ Assane Bousso ngir di ko tagg ak di ko kañ ci jikkoom ak melokaanam ñu teewlu way yi ci sëriñ Modou Mamoun Bousso ilimaan def wafaatu shayqi sawdil salmi baadil hulu zaaxiraati bila futuuri fasaadun xayru murtaibin wa sulmun fasaadun xayru murtaibin wa salmun ruknin fi madaarisina kabiiri wa man fi lmuskilaati annaasa yufti ida taaxaw li xallin fi lumuuri wa man li taalibiina bi darsi zikrin wa bassin lil ulumi ala suduuri ayaa xasana sarirati ta nifsan ida sirta almujaawira lilbasiiri xayita muhazaban biddiini kanzan ila al uxra raxalta maxa al ujuuri Mbay Buso miy waajuru sëriñ Cheikh Buso mi ci jumaa ji def na ay way ci jëmm jooju sëriñ Asan Buso ngir di ko tagg ñu teewlu way yi ci sëriñ Mbay Buso def fa yaa lahfan ala barrin taqiyin wihaa'il ilmi mujtanibi zunubi wa yaa lahfan ala nabbin karimin salimil qalbi sabbaarin munibi wa yaa lahfan ala qarmin samuutin fasiihin in qara yawman xatiibi fatan alifal ibaadati fi sibaahu wa afdallaha fi zamanil mashiibi fatan xazinat funuunil almi minhu fa adhat baadu kaddami fi lxaribi sëriñ aafiya buso ilimaan moom itam def na ay way ci jëmm jii di sëriñ asan buso ngir di ko kañ ak di ko tagg ci jikkoom ak melokaanam ñu teewlu way yi sëriñ aafiya buso ilimaan def ci jëmm jii di sëriñ asan buso waa man yaquumu bi saaqil jiddi mujtahida bi taatillahi lam yushrik bihi ahada ahni waquuran samuutan baarian fatina arman asilan taqiyan zahidan fuqida wa huwa almusubi والمفقود في الحرم المكي عند دخول البيت مقتصدا بحر العلوم إمام المفلقين معا نحوا عروضا بيانا فهمه وقدا سود حليم فنون العلم ظل به مذهولة العقل معروق العزام غدا Serigne Modou Abdou Khadr Mbacké di doomu Cheikh Abdou Khadr Mbacké moom tamit defoon na ay way ci jëmm ji di Serigne Assane Bousso ngir di ko tagg ak di ko kañ ci melokaanam Serigne Assane Bousso mii nag moo jàngal waajuram di Cheikh Abdou Khadr xaadir mbàkke ibnu sëriñ tuba seexul xaddiim ak moom moomu di sëriñ moodu mbàkke abdu xaadir sëriñ asan bu seytim ak waajuram sëriñ abdu xaadir mbàkke ñoo ànd dem màkkatal mu karama ci atum kon sëriñ moodu abdu xaadir tagg na ko ngir jikkoy sëriñ asan ak yeneen ak yeneeni boroomi xam-xam yoo xam ne nii ñu nawoon lañ jikkoy sëriñ asan bu sa mii ba way ko ay way way yi yépp ñu leen dégtal nag indi leen léppi xasida yi dañ ci doon barkeelu rek di leen jëmm jooju di sëriñ asan buso ku daa jàngale la boole koog di yare ndax kat moo doon woon waajuram ci daaray xam-xam jëm taxawaloon loolu itam taxoon na sëriñ tubaa seexul xaddiim gisoon ko ba faboon doomam jox ko ko muy soxna xadijatu mbàkke bintu seexul xaddiim mi bokk ak seex abdu xaadir mbàkke ak soxna maymunatu mbàkke kubra benn waajur wu jigéen muy soxna aminata kandi buso bi cheikh abdu xaadir mbàkke di dem màkka ci atu 1976 fukki nit ñeeg benn ñu cheikh abdu laxad mbàkke boole woon ak cheikh abdu xaadir mbàkke jëmm jooju di sëriñ asan buso ca la bokkoon ci màkkatal mukarama sax la génne àdduna ci bisu fukki fan ci weeru tabaski foofu sax lañ ko mujj denc jébbal ko fa boroomam ndax loolu la doon sàkku ca lettre ba mu bindoon waajuram wa kero ba muy dem màkk ci atum 1928 sëriñ Assane Bousso mi ngi génn àdduna bisub alxemes fukki fan ci weer wii di weeru tabaski ci atum 1396 ci gàddaay gi alxemes fukki fan ci weer wii di weeru tabaski ci atum 1396 ci gàddaay gi dëppoo muy jeudi 2 décembre 1976 jeudi 2 décembre 1976 1976 ñu mujj ko denc ci màkkatal mukarrama ay xalifaam nag nii la tëdde moom sëriñ asan buso sëriñ ahmadu buso asan moo ko wuutu ci atu 1976 ba atu 1988 ñaareelu xalifa sëriñ asan buso mooy sëriñ abo buso mim duppee waajuroom waddi sëriñ mbàkke buso moo fi toog ci atu 1988 ba nëgëni ñu koy ñaanal suñ boroom guddal aw fanam te yàggal ko ci toogaayu sëriñ asan buso ak mbooleem ay rakkam te def sutura ak xéewal ci kër googu sëriñ asan buso nag amul benn bis buñ koy fàtt fàttaliku maanam maanaam ñu tudde ak màggal waaye nag njaboot gi danañ def bu ñuy fàttaliku sëriñ mbàkke busa ci bis mu ñibbisee woon màkkatal mu karama ñaanaa laale ci seen waajur wa ñuy ñaan ci darajey sëriñ asan buso doomu sëriñ mbàkke buso bi yàlla na ko suñ boroom fay te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te guddal fanu njabootam gim fi bàyyi amiin tam gim fi